wa naqi na nga setal dana sal xiibati cërub jëw bi sukóorin ci cant wa dikri rabbika ak tudd sa boroom al mukarrimi kay aji terale ak shakuri kadib santaakon ne ko jëw moom ëpp naa def bu fekkee juum nga ba def ko nag na nga ko tuub te weccee ko cant ak tudd yàlla bu fekkee juum nga ba jëw daal na nga ko raxase tudd yàlla ak sant yàlla ndax cër ba daal di set cërub jëw ba daal di set wan wi te nga yéene xuyooran ay yiw li naf si ka ñeel sa bopp wali man ak ñeel képp koo xam ne raayatahoo gis nga ko yatlubuhaa mu koy sàkku ku la zaman ci bépp jamono ñi nga yéenee sa bopp aw yiw na nga ko ni yéenee képp koo gis mu di ko bëgg mooy képp koo gis muy bëgg lu baax rek na nga ko yéene lu baax ñi nga yéenee sa bopp lu baax war a xabte na ngay xemeem fi lësi ci la nga xam ne yurdi dana gërëmloo ilaahaka sa boroom war a xabte nga sib xan si waama walis lu dul la nga xam ne lay sa yurdihi tit mu koy gërëmloo foo toll del xeme ma ko bëgg lépp luy tax yàlla gërëm la tey bañ foo toll lépp lay tee am ngërëmul yàlla tabxirun li ak laabal la li muhammad alfadil ñeel sëñ fadlu lii moom sëñ bee ko waxoon sëñ fadlu bëgg koo laabal bëgg koo setal moom sëriñ fadlu tub tuubal li la si jëm ci yàlla mi nga xam ne lay sa yax faa du nëbbu xale yi ci moom cheyun dara minal lës yi ca la nga xam ne injala feeñ na wal axfa ak la gën a nabu mu ne ko na nga tuub dellu ci sa borom ñaan ko mu baal la lépp loo weesu te gërëm ko moo xam lu fés la moo xam lu làqu la ndax yàlla moom dara ump ko waxaa sibta na ngay xisaab an naf sa bakkan ba bitaa jil mataa bi ci gaawee tuub ga wa waay ji xan xaate nga jàkkaarloo bakkan bi bi tihaamin ci tuumaal waxitaamin akuk yedd ne ko bul di bàyyi sa bakkan rek ca la ko neex dee ko xisaab di seet ba xam ma ngay taxaw ci ndigal yi ak tere yi nam waree am déet te boo seetloo ne jàdd nga lum néew néew nga daal di gaaw tuub te fotol sa bakkan nga di ko tuumaal di ko yedd sa bakkan daal nam mel bu mu la neex mukk mukk mukk man taaba ku tuub lillahi jëm ci yàlla taaba mu jéggal xale yi ci moom wa taqarawu da nga mën a jàng alkitaaba téere ba bil mataa bi ci tuub rek mu ne ku tuub dellu ci yàlla yàlla jéggal ko te bala ngaa mën a jàng alxuraan njàng mu am njariñ dangaa tuub tuub ku sell njëkk fa kullu man képp koo xam ne lam yetta taxar laabut min xuyóobin ci ay sikk fa lay sa yëfoo su du tuufu bil xuyóobi ci xam-xami kumpa ya abadan mukk mu ne képp koo xam ne setoo ci yi lay tee ma nekk yàlla xeeti sikki yi xamal ne yàlla du la xamal xeeti kumpa yi mukk mukk wala tuppi bul topp maxluuxan mbindeef bil maxaas yi ci xeeti moy yi fa innahu naka loolu lan yel yi xaddu yell wu fiqta yal na tawfiqa leef la wu fiqta baatum ñaan la da ko wax ne ko bul topp menn mbindeef ci mooy yàlla mooy na nga moytu kenn di la yóbbaale ci mooy bu la kenn kenn mën a yóbbaale ci mooy yàlla ndax loolu moom jaaduwut wacc xal defal nafan njariñ makaana burri ci béréb bu lor abadan faaw waa bu dante ngay jaamu ilaahaka sa boroom bil awaamiri ca ndigal ya bépp foo xam ne lor nar na faa yàq fexeel ba def fa njariñ te nga sax ci jaamu yàlla sa boroom kem sa kàttan li ci topp dañ ko moolaale rek waaye sëriñ Fadlu moo ko waxan sëñ bu mag bi dane ko woon yaa ayuha cheikhu yow sëriñ bi an nafiisu ki aji sell wala ki aji gànjaru al murtaja kadikuñ yaakaar yaa faatihan yow mi aji ubbi maa la nga xam ne kaana nekkoon na xablu ci bu njëkk murtajan di lu ñu tëj bientu jaay naa bu nu wëtiye sama njuréel sama nekk di doom bil iradati ci ak taalube lakkum ñeel leen li kay onza ngir bëgg bu def ma xejjal bi xarqi xaadatin ci lu xotti baax ne ko yow sëñ bu sell bu ñàkk moroom bi yow mi nga xam ne la nga fekkan ñu tëj ko yaa ko tijji man day li ñuy tuddee sama diggante yow ci ak njureel ne yaa ma jur jaay naa la ko jënde ko taalu bi ndax bëgg nga defal ma lu xotti baax min baadi mastaraytumuha ci gannaaw ba ngeen ko jëndee nag min nii ci man ahdaytuha defaat naa ko addiya lakum ñeel leen bi xëyri man nin ci ludul ñax gannaaw boo nangu jaay gi ma la jaay nga xam ne kon am na njëggoo ma ci war a jox lépp far naa ko defaat addiya te duma la jekki di ñax naa la ah man kat def naa lu kenn mës ta def ndax jaay naa sama njureel jëndik taali mbaa nangam ak nangam ñax mooy di nett lu baax la nga def di ko wax ak waxaa defe ne def nga dara fal taqbaluha yàlla na ngeen ko nangu yaa malaasu yow wéerukaay bi karaman ngir tedd nga laa surtumoo yàlla bu ngeen deñ xalaman di xalam baynal baraayaa ci diggante mbindeef yi bi jaahi maxdoomikum ci daraja yi ka ngeen di liggéeyal al mufaddali ka di kuñ gënal xayril awaaxiri may ngën ji way mujj ya maxan boole seen wal óoli ak way jëkk ya dane ko kon li may sàkku kay mooy rek nga nangul ma addiye ji bi ma ko defaatee addiye daal dama yelwaan ñu nangul ma ko ci sang baax rek yàlla leen fi yàlla bàyyi nag ngeen di gindee ñu xamul fañ jëm ngeen di leen gindi ñu xam fañ jëm ci darajey ki ngeen di liggéeyal mu yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te muy këgën te muy këgën ñi njëkk ak ña mujj salla yàlla na dool tedd nga àllahi ci moom rabb naa sunu borom boo sàllama te mu dooli ko wóolu wa ali ak ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam wa karama te mu tellu ko tudd gi mu tudd yonante bi ne ko daraja yonante bi moo tax mu julli ci yonante bi yonante bi yàlla na ko yàlla dolli salaatu ak salaamu ak mbokkam ak i sahabaam alqaid yi moom ma doon aji wax ne inna li jawaabil kitaabi naka ñeel na tontu bataaxil ba xaqan aq karat di salaami niki fay am nuyoo sëñ tool daa bëgg sëñ bu mag bi tontu ko moo tax mu daaneele yàlla na yàlla dolli teraanga ak jàmm ak barke ci yonante bi yonante bi waxan ne buñ la bindee bataaxel kat war ngaa tontu bataaxel ba niki rek buñ la nuyoo war ngaa fay nuyoo ba sëñ bi tontu ko lii nag maa lii mooy li nga xam ne ajaaba tontu na ko moom sëriñ bi radiya yàlla na dollee gërëm allahu yàlla xan xoolis ko wana faax naa te yàlla nañ dollee jëriñ bi ci moom lii nag la sëñ mag bi tontu woon sëriñ fadlu bismillahi irrahmani irrahim wasalaat dolli teral wasalaama ak dolli wóolu xalaa xayri kulli maxdoomin yàlla nekk ci ki gën ci képp ku ñu liggéeyal fal jawaabu tontu la fil masalatayni ci yaari mbir yooyee mooy laaya ba ne falaa taxlamu du xam nafsun benn bakkan maa la nga xam ne uxfiya làqees na ko mooy dencalees na ko lahum ñeel leen min qurrati ayunin ci seddu bët al aaya ja al aayata jàngal laay ba mat wasalaamun te jàmm yàlla aleykum yàlla nekk ci yéen yasurrukum bopp da leen di bégloo wayen faaxakum tem leen di jëriñ wala yadurukum teedu leen lor abadan mukk sëñ bi daa tàmbalee bismillahi rahmaani rahim teg ci julli ci yonante bi ne ko ah yaar yooyu nga wax day te mooy jaay ma sa njureel jëndeg taalibe wala bëti defaat loola far addiya loolu mooy yaari mbir yi dama la cee tontu laaya ba waxam ne gaa yooyee de fanaanee julli guddeeg def lu baax de la leen yàlla dencal ci luy tax seen xol sedd kenn kenn kenn xamu ko dane ko rek loolu nga def lañu la ca dencal ci luy sedd sa xol daal yàlla rek ko xam daaneele nag nuyu ko ñaanal ko jàmm joo xam ne da koy bégloo moom sëriñ fadlu di ko jariñ te du taseeg lor mukk mukk foofu nag fi la yokk yi ñu sësale woon ci mu nawir su dóor yem li ci topp nag moom daa bokk ci majmooha bi ñu boole woon waxi sëriñ tuubaa yi ñu far ko fecclee li des ci kaset bi qitaatun li ab dog la taqtax boobu dana dagg baynal muridi diggante aji na mu yàlla wal maridi ak aji fettirlu nee na wax ji moom sëñ bi moo ko wax te mooy teqale kan moo nekk murid na mu yàlla ak kan moo nekk maridi di aji fettirlu seytaane féetewoo ko di ko jëmale fu ko soob ñaar ñooñu way yi moo koy teqale dafa tàmbalee bismillahi irrahmani irahim teg ci sallallahu ala sayidina muhammadin wasallam ni wasful muridi melaw ab murid tarkuhu mooy ak bàyyeem al iradatu na mel ga li wajji man ngir jëmmi ka nga xam ne yafaal dana def maa la nga xam ne araadahoo namm na ko nee na taalibe dëgg-dëgg daal du bëgg du namm lu may yàlla yàlla rek mooy nekk yitteem kon ab taalibe dëgg-dëgg day bàyyi lépp lu dul yàlla dëgmal yàlla yi kese su boobaa rek ab taalibe la man lam yurid di koo xam ne mut chey an dara si waa mawlaahu ndare boroomam yasin mu àgg la xoo jëm ci moom wa awlaahu te mu méngale ko xayrahoo yiwam wa nee na ku bëggul lu may yàlla faaw yàlla àggale la ci boppam jox la wépp yiw faslu kon na nga soobu xalaa yadday murabbin ci ñaari loxoy sëriñub tarbiya naasihin buy aju laa biir yaquudu boobu dana womate lil ilaahi jëm ci buur bi bin nawaasihi ca laa biire ya kon nee na fexeel ba fekk sëriñ boo xam ne àgg na ci yàlla te ku laabiir la nga jox ko sa bopp mu daal lay womat teg la ci yoonu yàlla ba nga àgg ci sa borom faman taallaqa ku jàppandu bi waa silin ci aji àgg wasala mu àgg waman taallaqa ku jàppandu bi ak si ci safaanam it in fasala mu facc sëñ bi ne ku jàppandu ci ku àgg faaw nga àgg incha allahu waaye nag ku jàppandu ci ku àggut it doo mën a àgg ndax fu dara nekkut loo ko fa wut wut doo ko fa amee fa xaytuma amaraka foofi xam ne digal na la al murabbi sëriñu tarbiya ba fam tasil na nga topp al amra ndigal la tasil kon nga àgg li rabbi jëm ca buuru ba ne sëriñ bi lay tarbiya di la wan yoonu yàlla saa yu la digalee rek toppal ndigal la daldi àgg ci sa borom wa xaytuma nahaaka foofi xam ne tere na la xan cheyin walis dara falaa tamit bul jeng lëxoo jëm ci moom wala tax fulante bul sàggan xan ridan walis ngërëm nee na sëriñ bi lay tërbiyee la wan yoonu yàlla daal lum la aay rek sori ko bu baax a baax te lépp luy tax nga am ngërëmul yàlla rek nekk ca tabañ caa sàggan idi ngir al murabbi sëriñub tarbiya laa yuridu du namm fil muridi ci taalibe ba ilal wusoo la ndare àgg ga naajiyan mbir muy aji mucc minal maridi ci aji fetteer lu ja ndax nee na sëriñub tarbiya moom bëggalu taalibe ba lu may rek mu àgg ci yàlla te mucc ci saytaane kon ab sëriñ bu ne la mu bëggal taalibe bi rek mooy àggale ko ci yàlla te saytaane bañ koo dog ci genn wet fa man dal la ko koo xam ne tegtal na la xalaa xayril illaahi ci kuril buur bi fa firra dawal minhu ci moom ndax innahu naka moom adal la ka réeral na la nee na ku la wan lu bokkut ak yàlla say boo daw sori ko ndax ma nga lay sànq wa man dallaka ku la tegtal xalal illaahi ci buur bi fa in xaalaftahoo ndéem jiyoo nga ak moom fa tatma inn kon da nga dal lil maridi jëm ci aji féttéer lu ja nee na sëriñ bi nga xam ne nag moom yàlla képp la la wan na nga moytoo jiyoo moom boo jiyoo moom rek xamal ne kon da nga ko faa bàyyi dem fareeg saytaane mu féttéer lu moomee ku nekkal muminan di aji gëm wa musliman te di ab julit wa muhsinan tey aji rafetal indrum te ndeem sàkku nga sayran dox li illaahi jëm ci buur bi tuhsina kon nga rafetal rek daa wax ne fexeel ba boole yett yi gëm ak wéye ndigal bàyyi tere muy ñaar ak sellal loolu lépp yàlla rek tax su fekkee ne gëm nga wéye santaane yàlla ci kaw suuf te lépp yàlla doo nga tax kon boole nga iman islam ihsan yett yi nag nee na mooy yoonu yàlla boo bëggee dem ci yàlla rek na nga taxaw yett yooyu laata turuk bul bàyyi alxaqaida pas-pas ya as sunni yata ya ko jug sunna wala simte na nga taxaw alxibaadata jaamu ga al mardiyata ga diguñ gërëm wala takun te bul nekk mul tawitan di aji geestu li xëy di mën jëm ci kull ka nga xam ne lëxoo ñeel na ko alxibaadu jaam ña wal fixaalu ak jëf ya wal zamanu ak jamono nee na fexeel ba tawxiid te mooy pas-pasu waa sunna ñu nekk ci sunna lañu fas ci yàlla ak lislaam nga ànd ak ñoom pas-pas bu sell boobee baña ànd ak boroom pas-pas yu sikk yi su ko defee itam fiq itam nga taxoo jaamu yàlla la shari rëdd rek nga jéem ko kem sa kàttan bañ koo moy lu mu tuuti tuuti tasawuf itam nga fexe ba doo gees lu may yàlla sellal ba lépp looy wax ak lépp looy jëf yàlla doo ngay tax moo tax mu naa bul geesu ku may ki nga xam ne moo moom jaam ñi moo moom jëf yi moo moom jamono moo moom lépp lépp daal ci gàttal yaa sinu ko dina la musal ak tawxiidu tawxiid min kufrin ci weddi yàlla xabu xagug bon na wa tak fii ka dana la fegal alxibaadatu jaamu yàlla ga alfisqa kàccoor ga muy caay-caay ga fa bux na nga tudd wa yaxsimu dana musal al ihsaanu rafetal ga xalbaka sa xol nim riyaayan ci ngistal xaasihi yile xiye ñoom al hisaanu ñoo di way rafet ya moom la tuddalee iman islam ihsaan mu ne la iman mooy tawxiid mooy dox sa digganteeg wedd yàlla islam mooy fiq te mooy shariha boo ko sàmmee mooy dox sa digganteeg xëtt yoon wi jàddu ko dem bay def jëfi jaay-jaay déedéet kon sàmmonteeg fiq muy shariha mooy dox sa digganteeg ak kàccoor te mooy génn ci topp def lu yàlla aaye ko ko def fiq fiq moo la koy xamal ba nga mën ko sori moom la yàlla aaye nga xam ne bëggul koo def ihsaan nag te mooy tasawuf moo lay xamal ni ngay sellale sa digganteeg sa borom ba lépp looy wax ak lépp looy jëf yàlla rek tax su ko defee nga mucc ci lépp lay tee ma nekk sa borom kon nee na yett yi mooy rafet yi nga xam ne ñoo di yoonu yàlla wa kullu man képp koo xam ne daxa woote na li rabbihi jëm ci boroomam bila bila sabilihi ci dul yoonam wax fa innahu naka moom lañ yuqbala def ko nangu nee na kuy woote jëmee ci yàlla te awut ci yoonu yàlla wax kooku day lor na boppam loraale ñamuy woo ba tey nag mën nga ne képp koo xam ne mi ngi woote jëmee ci yàlla te amu ci ndigalul xaas lu bàyyi ko ci yàlla ba tey moom it soo tuut dana loru loraale ña koy topp ndax ndax lay aay rek mooy mu wane ne moom am na cër ci yàlla ba day wooteel yàlla loola day mel ne kon daa wane lu amut nde sax woote woote bu zahir rek maanaam woote ci li alxuraan dëdd ak sunna ak yoonu gaa yu baax yi rek noonu moom képp ku ci am yéene ju sell rek mën na ko waaye la cay bon nag mooy mu wane ca lenn luy wane ne moom da ca am mbirum baatin mu ko ci yàlla jagleel ba tax na ku muy woo ak ku muy tegtal moo dox sa digganteeg sa boroom te agul foofa loolu rek woote lu nekkul ci moom rek moom lañ cay bañ xëga jàppal tixil xitaxata bi le dog yaa muriidu yow taalibe bi yan xu kon dana jublu li xayri durrika jëm ci lu dul salor almariidu aji fetteer lu ja nee na taalibe bi dog bii day maa la ko bindal mu lay xamal kan mooy taalibe ak kan moo dul taalibe kon nag jàpp ci bu baax a baax soo jàppee rek mucc ci seytaane seytaan du la mën a lor alhamdu xeeti cant yépp lillahi ajee la ñeel yàlla wasalla te yàlla na dool tedd nga sarmadan faawu musalliman mbir mu muy aju dooli wóolu ala nabi ci yonante bi ahmad te moo di ahmad wa alihi ak ñooñam wa sahabi ak ay saxaabaam wa taabihiina ak way topp ña maa saaxali feek màng na maanaam jiital na rabbu naa sunu boroom allah ay na kañ kañu rabbu allah ay na kañu rabbu li siwaanaa jëm ci kuddul nun sëñ bi dane kon nag maa ngi dellu di sant yàlla di ñaan yàlla mu dolli salaatu ak salaamu yonante bi ak mboolem mbokk mi ko gëmoon ak saxaabaam yaag mboolem ña topp ci ñoom tey jéem a rafetal li fekk nga xam ne yàlla ngi jiital seytaane jëme feneen fu bokkut ak nun daal te loolu mooy am ba faaw yal na yàlla saxalal salaatu salaamu yonante bi ak gaayam yooyu le sëñ bi daaneele nag subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin tambihun li ak yeete la wa man araada ku namm alqurba jege min rabbil wara ci buuru mbindee fi falyatlu ban na sàkku cheikhan ab sëriñ mu yetlu te muy jàng assuwara saari alquran nee na ku bëgg a jege yàlla da nga wut ab sëriñ bu la tegtal sa boroom te farlu ci jàng alquran te ànd ak settantal akuk làpp inam tisaala amri cheikhin naka topp ndigalal ab sëriñ xaarifin bi aji xam yufdi day àggale almurida taalibe ba li dawil maarifi jëme ci waroom xam yàlla ya nee na fekk sëriñ boo xam ne xam ne yàlla da jox ko sa mbir mu teete la day tax nga àgg ci fa nga xam ne fa la gaay yàlla ya àggoon tumma tilaawatul kitaabi topp jàng téere ba yan faxu dana jariñ taaliyahu aji jàngam ja wayar faxu te mu yëkkatee lil jinaani jëm ci àjjana ya boo seetloo bay di woowu nag fu ma ko mën di gis rek noonu laa gis ñu binde ko fa daa mel ne bu dee ci saaxir moom yan faxu tan faxu moo fa gën a yell yar faxu tar faxu moo fa gën a yell teewul nag bu dee ci wàllu naxu mën nañoo jàpp ne alkitaab ji nga xam ne mudaaf ilayhi la moo fàggul ak ngóoral tilaawatu bañ mën a def yan faxu ak yar faxu waaye daal bu dee ci zahir rek moom tan faxu ak tar faxu mooy gën a yell suñ bi daa wax ne jàngal xoraan day jëriñ kookee di jàng di ko yëkkati jëme àjjana maanaam daal jàngal xoraan day tax foo toll di jëriñu te it xamal ne yaa nga jëm rek àjjana jëm kaw rek wuti àjjana innal maarifa naka xam-xam ya kunóosun ay ndàmb lañu wala ay koom lañu tabaxaa yooyu danañu des mahazawihi ànd ak ñoñam moom itam mahazawiha mu gën a yell ci bu fekkee dafa dellu ci baatub maarif wal illahu te buur ba abxaa mu gën a des day wane ne xam yàlla moom dara melu ni ndàmb la loo xam ne ku xos am rek am nga koom mu dul jeex mu ànd ak yow ba faw àdduna ak alaxira ni nga xamee ne yàlla du jeex mukk-mukk rek xam ko ak am ngërëmam it noonu la mel koom mu dul jeex la duumoo na ngeen sax xalam tisaali amri rabbi ci topp ndigalal buur ba bi amri cheikhin ci ndigalal ab sëriñ waa silin buy aji àgg mu rabbin kuy aji tërbiya nee na ngeen farlu ci fekk sëriñ boo xam ne àgg na ci yàlla te mën na caa àggalee ngeen sax ci moom rek toog fa moom mu tërbiya leen ba ngeen mën a nekk seen boroom nag kon da ngeen sax ci topp ndigalul yàlla waaye nag bu leen wéeg seen bopp da ngeen di fekk sëriñ boo xam ne àgg na te mën a àggale ngeen ronn ci suufam nag mu leen di digal ak a tere jëme leen ca seen borom bu ngeen àgg incha allah wasalaam bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman tajribun li ak seet la jarraba nattu na mooy seet na ci la bàyyi ko tajrib mi ak seet léeg-léeg mu wax ko jëme ko ci xalima nag léeg-léeg mu wax tajribul midaadi wala tajribul xalam wa taqribun tey ak jegeñal ilal muj ilal mujibi jëm ci yàlla mi aji wuyoo alqaribi kay aji jege daa mel ne ay way la yu mu wax di ci seet xalimaam ak daaxam te muy loo xam ne boo ko toppee jariñoo ko mu jegeel la sa boroom mu nga xam ne jege ko rek am njariñ muy waa ji na nga jàkkaarloog jinaan rabbika àjjanay sa boroom alkarimi may aji tedd dil juudi kay boroom ak tab wat tafdili aku gënal wat takrimi aku teral bil imtisaali ca topp ga ndigal al moojibit taskiini ngay aji waral dëkkal ca àjjana joojee ba xajjitinaa bin ànd ko moytu tere tuxda kon def na la xejjal wala taxda kon nga xejj bi tam kii ni ca dëgëral ga nee na àjjana yàlla jee boo ci bëggee dem da ngay sax ci yaar jëfe ndigal bàyyi tere yaar yi moom boo ci saxee rek jëfe ndigal bàyyi tere te yàlla tax yaa ngi ci yoonu àjjana bu fekkee bàyyiwoo ko rek da nga dem ba àgg ca yàlla dëkkal la ja may la lépp luy dara ja ba tey fee mën nga koo filee ma xajitinaa bin ànd ak moytu tere taxza kon nga xeej wala tuxza kon def na la xeejal bit tam kii ni ci dara jaal waaw makkana tam kii nan dana firi makkana dara jaal na loolu mel ne ne yella na foofu wa qaddim na nga jiital at tawbata tuub ga min maxaasin ci ay moy wala tuxibba te bul sopp mufdiyan aji àggale li xaasin ñeel aji mooy nee na li war a jiitu lépp lépp nag mooy tuub tuub gu sell lépp loo mas a weesu te yàlla gërëmu ko rek nga rëccu ko tuub ko bañ caa dellu bañ a dellu ci leneen lu mu gërëmut bañ a bëgg ak mooy bañ a bëgg ku lay tax a mooy lépp lu lay àggale ci mooy rek nga di ko bañ a ko daw loolu moo war a jiitu kon tuub te sax ca tuub ga tey wattandiku ak mooy ak kuy mooy loolu mooy njëlbeenu yoonu yàlla mawaadixul mataa bi bérébi tuub ga xalbun mooy xol wa lisaanun ak làmmiñ wa badanun aku yaram tatxiiru bii laabal yile yoonti dana joxe alxisaana way rafet ya nee na tuub nag boo ko bëggee xamal ne am na ñetti béréb yoo xam ne ca la tuub ga war a feeñ ca la tuub ga di aju mooy xol bi ak làmmiñ wi ak yaram wi mooy li def ci cër yi gannaaw boo génnee xol ak làmmiñ ñetti béréb yi tuub yi day muy xol ak làmmiñ ak la des ca cër ya boo leen laabalee bañ laab ci tuub gu sell boobu rek day da nga daal di am lépp lu baax mu teqaleel la ko fa taxir na nga laabal alqalba xol ba bin na daamati ci réccu ga bila taxarrurin ci ludul ak waru wa kunta nga nekk muq bi leen di aji dëgmal lil xal yi ñeel aji kawe ja xol bi moo jiitu nee na xol bi rëccu muy ak tuubam xol bi ne rëccu bu baax a baax lépp loo xam ne rek weesu woon na ko te muy lu neexul yàlla xol bi rëccu ko lool te dogu ci bàyyi ko dëgmal rek nag yàlla wa taxir na nga laabal al lisaan làmmiñ wa bistixfaarin ci sàkku njéggal li xaw fi rabbin ngir ragal ab buur maalikin kuy aji moom xafaarin ku di ab jéggale waa kon li nga weesu léegi mooy xol bi mu jàll ci làmmiñ wi làmmiñ wi moom nee na da nga ciy bari la jéggalu sa borom bu tedd bi bu mën a jéggale bi da ngay bari astaxfirullah ak noo ko mën di waxee rek ci xeeti jéggalu yi nga koy bari saw làmmiñ loolu mooy tuubug làmmiñ wi wa taxir na nga laabal albadana yaram wa bil iqlaahi ci buddiku buddiku mooy bàyyi mooy ga fattaw bu tuub ga laa yazaalu du deñ bil xallaaxi di ab buddi waa konub lépp lu gënut lépp luy ay gannaaw boo génnee xol ak làmmiñ li des ci cër yi moom seen wàll ci tuub gi mooy rek daal di sori mooy ga fekkee da nga ne damay tuub te fekk nga nekk ci mooy na nga ko daal di bàyyi fas saasay saasay saasa ndax bu fekkee bàyyiwoo ko fas saasay saasa ngay mel ne kon da ngay reetaan yàlla mi nga naa maa ngi lay tuubal tuub nag moom nee na rek day dindi lépp lu bon lépp lu ñu gërëmut ba jaam ba set wecc mel ni musta jaar sax ci ak mooy wawattin na nga dëkkal alxal ba xol ba wawattin te nga dëkkal al lisaana làmmiñ wa wawattin te nga dëkkal al badana yaram wa tàdd far kon nga tuufu bi xisaanin ci way rafet li weesu woon na ko ci gannaaw da ko andi ci way yi mooy xol bi am na fu mu war a dëkk nga dëkkal ko fa ak dund boo xam ne moom la war a dundee nga di ko ko dundalee làmmiñ wi am na ab dëkk bu mu war a dëkk nga dëkkal ko ca am na itam dund bu mu war a dundee nga di ko ko dundalee yaram wi itam am na dëkk bu mu war a dëkk ak dund bu mu war a dundee nga war koo dëkkal ca dëkkuwaayam boobee di ko dundalee dundam boobee mu daal koy teqale nam ko teqale woon ca wesar wa tawxiidu rabbinaa wéetal sunu boroom wa niyatul xuyóor yi ak yéeni ay yiw wattanu xalbika mooy dëkkub sab xol bi xóotin ànd kub dund fi duyóori ca kër ya xol moom neen da nga koy dëkkal ci tawxiid dëkkuwaay bi nga xam ne waru caa jóg benn yoon mooy wéetal yàlla fu mu toll di teewlu ne yàlla kenn la lu bokkut ak moom rek ab jaamam la di jëfam lu bokkut ak yàlla yàllaa ko sàkk muy ab jaamam di jëfam jum jëf rek loolu fu mu toll di ko teewlu loolu mooy dëkkub xol ab dundam nag mooy saxoo yéene lu baax xol moom di yéene aw yiw fu mu toll rek mooy ab dundam ba nga xam ne moo koy dundal wawatanul lisaani dëkkub làmmiñ wa dikrullahi mooy tudd yàlla wa xawlu xayrin te wax aw yiw xootuxoo mooy dundam ba wallahi ginnaa ko ci yàlla dund bi nga xam ne mooy dundub làmmiñ te nga war ko caa dundal saa yu nekk mooy saxoo wax aw yiw saxoo wax lu baax
wa watanul jasadi dëkkub yaram wa fi'lu waajibin mooy def warteef wa fi'li wa fi'lu mandoobin ak def lu ñu sopp bi xayri xaajibin ci ludul jenn aji yiir nee na yaram wi moom fi nga koy dëkkal rek mooy sax ci jëfe waajib ak mandoob la yàlla bëgg daal benn muy lu mu bëgg ba noppi waral ko ci jaam bi mbaa lu mu bëgg te waralu ko waaye bu sañoon ñu defal ko ko na yaram wi sax ci yooyu yaar loolu mooy fa nga ko war a dëkkal waqootuhoo dundam ba nag al mu baaxu mooy lañu daganal yaram wi nag li nga xam ne moom lu war a dunde mooy nga fexe ba lépp looy jëfandikoo muy lekk muy naan muy sol muy dëkke muy lu dagan di moytu jëfandikoo lu araam mbaa lu ñu sib benn yoon kon yaram wi moom ab dundam mooy rek di ko dundale lu dagan diin nasihatu giléeg laa biire xaadaxaa womat na ko lii jëm ci man man yàlla